yaa xayra dayfin ataa bil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bilaa auzu billahi min sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala man laa nabiya baxla sayidina wa mawlana muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi wa sallama tasliman mbokki réew mi ñu ngi leen di nuyu bu baax a te di leen ziar di dikkaat ak yéen ci beneen jotaay muy li ñu waajal jëme ko ci koor gi tey nag ñu tànn benn ci atte yi nga xamante ni ab laaj la boo xamante ni dikkal nañu mooy ki nga xamante ni dafa amee woon boru koor ba koor dellusiwaat naka la war a doxalee bu dee ki nga xamante ni dafa amee woon baru koor ba koor ak siwaat bu fekkente ni ngànt la woon ngànt moo ko tere woon woor mooy koo xamante ni dafa feebaroon wala li ko daloon du ci coobaree boppam li ki jigéen ji nàmpal wala yu mel mu ne bu dee ngànt la woon moom dafay ñëw fay rek su dee ngànt la woon dafay fay rek su dee du ngànt nag maanaam nga xamante ni moo ko coobare woon amee woon ay bor daaw ci diggante mu war koo fay fayu ko ci càgganteem ba koor dellu siwaat kooku moom bis bu set buy woor dafay joxewaale ab mudd mudd nag ku ko xamul mooy libaru ceeb dafay fexe bis bu set bu wooree rek mu natt liibaru ceeb joxe ko waaye du tere koor ak weeru koor gi ñu nekk da koy woor ba weer yu mat mu dori jublu ci fay buy fay nag day fay bis bu set mu génne waale mudd bi ci topp itam muy beneen laaj boo xamante ni dikkal nañu ñu war ko ci boole boolewaale itam mooy ki nga xamante ni mënatul woor benn docteur yi dañ koo consulter ba xamal ko ne ko yow mii woor wàcc na la mënatoo woor wala muy am màgget moo xamante ne dafa dem ba màgget ba mënatul woor moom itam war na bis bu set muy génne am mudd di ko joxe kooku du woor waaye bis bu set day natt mudd génne ko joxe ko mooy day leel benn miskin moom itam kon ñooñu loolu moom mooy doon seen moom la ñu tànnoon indi ko ci bisub tey yóbbalu bis bi tey dañuy tànn li nga xamante ni moom la euh, yonent bi alayhi salaatu wasalaam dénkaane woon te sunu sëriñ bu baax bi muy sëriñ tubaa doon ñu ci soññu saa su ne mooy di ñu xamal nañu dund doomu aadama dafa gàtt ndeem dund gi dafa gàtt nag war naa góor góorgóorlu ci jëf ci jëf yu baax balaa dund gi di jeex ndax lépp lu ko sunu borom jox lu nekk rek ab dénkaane la te dénkaan boobu dafay jeex dafa wax ne yii nit ki war a góor góorloo balaa mu leen di ñàkk dafa ne nag gaaw ci juróom yi balaa juróom yi di ñëw njëkk mooy waxtaan dafa ne waxtaan yi moo xam san lal xam si gaawal ci juróom balaa juróom di ñëw ashababu xablal haram jamono bi ngay nekk ndaw balaa ngay nekk mag ndax ak ndaw saxul nit ki fi muy nekkee ndaw dafa gaaw dem temps bi dafa gaaw nag war naa góorgóorlu ci ndaw googu góorgóorlu ba jox ko yàlla fokk lu man baadara waxta sixari ilal huda istaraaxa waxtal kibari képp ku gaaw ci sag ndaw jox ko yàlla boo demee ba nekk mag di nga noppalu daal di ne gannaaw bu ndaw jàllee na xam ne ak wér balaa wér di ñëw as sixatu xabla sa xam nit ki bu wéree na xam ne yàgg-yàgg wéré di day am ndax yaram bu tooy bu nekk bis dana ñëw mu wow kullu man fan fanin wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram lépp lu tooy lu nekk rek dana wow ba mu des jëmmi yàlla sunu borom kon nit ku nekk war na góorgóorlu ci bi muy wér balaa tawat di ñëw lu mu mën ci def ko ci lu baax mu góorgóorlu ci bi ci topp mooy jamono bi ngay am koom balaa nga koy ñàkk ndax ku nekk ci ñun xam na ne koom gii nu yàlla dénk muy alal ji wala xaalis bi dafay mbir moo xamante ni dénkaane rek la ci ñun bi muy ñëw tàgguwuñu kon buy dem mën na bañ a tàggu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ñu dénk ne nañu fexee gaaw def ci lu baax balaa alal jooju di génnaat ci suñu loxo alxina xablal faqri jamono bi ngay am koom na nga gaaw profité ci def ci lu baax balaa koom googu di jàll wala sunu borom di ko nanguwaat say loxo la ca topp mooy jamono bi ngay féex balaa xat di ñëw ndax nit ku nekk am na jamono boo xam ne di nga am temps jamono bi ngay am temps fexeel góorgóorlu sa temps boobu nga jeexal ko ci yàlla ndax benn minute bi jàll ci doomu aadama bi boo boole woon urus yi ak or yi ci àdduna bi yëpp looloo leen gën a seer ndax nit ki bu noyyi woon ba noyam dagg nga yëkkati li gën a seer ci àdduna bi di ko joxe itam du tax nga mën koo delloosiwaat ci àdduna kon jamono bi ngay noyyi war ngaa góorgóorlu am ku wér war ngaa góorlu balaa wér di di ñëw jamono bi ngay am koom war ngaa góorgóorlu balaa nga koy ñàkk jamono bi ngay nekk ndaw war ngaa góorgóorlu balaa mag di ñëw ba ca des nag mooy jamono bi ngay dund balaa faatu di ñëw ndax nit bu xasee ba dee mënatul dellu ginnaaw te ki faatu woon tey boo ko laajoon àdduna li ci biiram mën na koo joxe ngir dellu siwaat mën a góorgóorlu jëfal boromam kon nanu xam ne diggante boobu diggante su gàtt la jamono bi nit ki di dund war naa góorgóorlu balaa faatu di ñëw ndax dee benn yoon lay ñëw ci dunduk doomu bi kon loolu moom mooy li nga xam ne moo doonoon yóbbalu bés bi yaa xayra dayfin ata bil bisri wal madadi alal wasa kon ñu jàll ak yéen ci naafila bés bi naafila bis bi nag dafay wax ne képp koo xamante ni julli na ñeenti ràkka te rakka bu nekk mu jàng ci fatiha fatihatul kitab ak ayatul kursiyu ak inna anzalnaahu fatihatul kitab ayatul kursiyu ak inna anzalnaahu benn fatiha lay jàng ayatul yu mu jàng ko fukk ak ñaar inna anzalnaahu mu jàng ko fukk ak ñaar mu ne kooku kat mu ngi koy xamal ne su ko defee ba noppi rek sunu borom daf koy daal di jéggal mbooleem li nga xamante ni moo doon ay bàkkaaram mboole bàkkaar yi nga xamante ni jiitu woon na yépp sunu borom da ko koy jéggal te itam sunu borom dina ko bindal yoolub juróom-benn fukki siddiix yàlla dina ko bindal juróom-benn fukki junni maanaam juróom ñaar fukki junni ci yoolu siddiix la koy bindal ak shuhada shuhada mooy ko teye ci toolu xare siddiix mooy koo xamante ni ku amoon kóolute ci yàlla sunu borom lay doon. ba ca des itam mooy sunu borom dana ko may bu ëllëgee mu bokk ci ñi mën a ràmm ay nit ñoo xamante ne danañ tàbbi dana leen jëlee ñoo xam ne sawara lañu ñu waroon dem mu jële leen foofee jëme leen àjjana ci kàttanu yàlla sunu borom أهلا وسهلا وترحيبا بلا